ñëw kenn kenn reproché wu ko cest dire dafa jël moom initiative ne li ma président Senghor defaloon maanaam ba ma ñëwee dafa génn ci mbirum réew mi waxul ça m'a beaucoup man Abdou Diouf su suma pare du ma waxati ci mbirum réew mi boo léegi il y le le 23 juin xew na fi mhm. ñëpp xam nañ lu xew le 23 juin ça a benn onde de choc bu grave dans ce pays mhm. 2021 euh, jaar na fi juin 2023 jaar na fi kenn déggul le président Abdou Diouf. Euh, sañ na ko aussi donc man jàpp loolu laa la wax mais loolu laa la wax gis na ni loolu laa wax dama jàpp na ne ne su demee bay yëkkati kàddu dafa war a commencer d'abord par ñaawlu lu ñëpp ñaawlu y compris la communauté internationale ñëpp si maase wu mooy que ne président Macky lu mu def à travers son décret tegu ko fenn gis nga gis nga Pape on parle d'élection c'est important on parle d'élection dama doon liir keroog parce que man j'aime bien delluwaat dégluwaat nit ñi président Macky Sall position yu mu am ba ce qui s'est passé au Mali amee mm-hmm. il a fait une déclaration déclaration pour demander le retour de l'ordre constitutionnel mm-hmm. xam nga loolu lan lay tekki te pourtant Mali dañ nekk ci guerre Mali y a des parties de leur territoire boo xam ne ñoom contrôlé wuñu ko nu sécurité nekkee priorité démocratie nu mu nekkee priorité si ñu noom la sécurité nekkee priorité si ñoom mais ñoom ils leur ont mis la pression ne leen non d'accord réglez vos questions sécuritaires mais jiital leen la démocratie da ngeen war a organiser ay élections ils les ont même dem nañ sax ba defal leen ay embargo mais yow fii sa réew dara amu fi ñoom ñoo ko confirmer léegi moom si boppam sa dem na il sa paye le luxe def conseil des ministres ba mu jeex waxul si lu fi xew mu ngi def comme si un président bu fi nekk boobu ba léegi ça veut que dara xewul nga xëy benn jour nga daal di toxal ay élections loolu moo doon loo xamante ne mënuñu ko accepter pour man loolu c'est inacceptable maintenant soo ñëwee ci raison yi xam nga léegi neewoon nañ commission d'enquête parlementaire moi je précise franchement foog naa jarul mu ci ñëw di si ñëwaat moi je me suis beaucoup battu pour Karim Wade ak Khalifa Sall nekk candidat très franchement je pense également beaucoup de candidats yu ñu recalé très franchement waroon nañu bokk ci élection yi gëm naa liggéey bu ñu def sur le terrain et tout waroon nañu war a mun a bokk. mais. vingt candidats. mais hmm? non. cest à que dama wax lu ma yéene rek dama wax lu ma yéene allez-y mais dura lex sed lex la loi elle est dure mais c'est la loi. te la lu mu teg moom la tegoon démb ay nit moom la tegoon barki démb ay nit tey mu war ko teg ñeneen ay nit kenn ne rafetluwu ko suñu sañoo ñëpp bokk mais on parle d'élection élection du affaire seulement les hommes politiques. ki bindoon miiri Dakar yi. élection du seulement les hommes politiques da nga ko bëgg a da nga ko bëgg a <laughs> da nga du seulement les hommes politiques. xam nga yaa ngi wax rose mais moom mooy perturbé non <laughs> élection Alpha Thiam lay programme élection du seulement <laughs> les hommes politiques élection c'est un rendez-vous mm-hmm. avec le peuple sénégalais qui est peuple souverain mm-hmm. dafa am ñoo xamante ne politiciens yi dinañ nekk débat ñu ngi seeni mbiru bopp dafa am keroog ku ma woo mu ne ma lii gars yi di def yëpp ma manifestation waxuma damaa téye sama carte di xaar élection jot ñu ne ma déedéet élection du fi amee mais au nom de quoi non non non je, suis très sérieux madame au nom de quoi le président Macky Sall bi am ay prérogatives yu mu jëlee ci constitution au même titre que le conseil constitutionnel au même titre que les autres institutions moom mu nekk le garant le gardien de la constitution mu jure def serment serment de respecter de faire respecter la constitution au nom de quoi ce président là mu ñëw jalgati constitution mettre ñu dans cette situation là qui est une situation d'impasse je le précise c'est une situation d'impasse ñu ci génn non dina jafe trop et j'insiste sur ça aussi bien du point de vue politique mooy négociation yi ñuy wax que du point de vue du droit ñaar yëpp c'est difficile parce que tey conseil constitutionnel supposons mu ne arrêté na loi bi c'est inconstitutionnel mën na ko nag parce que ñoom ñu ngi wër naan non non mënu ko mën na ko parce que am na décision moom bu mu génne si boppam en France depuis le 2 septembre 1992 am na aussi une décision dans ce sens mu am deux limites deux limites temporelles am limite matérielle limite temporelle bi mooy période bi nga xamante président assemblée nationale remplacé na président kenn mënu def révision période bi nga xamante ne pouvoir exceptionnel président la kenn mënu def révision mais limite matérielle bi moo jëm sur les clauses intangibles nee na le pouvoir yow yaay assemblée nationale yow yaay représenté peuple man surtout ma la de man conseil waaye dafa am loo bind ci constitution bi yow am nga possibilité change def lu la neex waaye am na lu nekk ci constitution bi man maa koy xool loolu waroo ko laal donc loolu wax na ko sur une décision du conseil constitutionnel sénégalais wax nañ ko sur une décision du conseil constitutionnel français donc mën nañ ko mais imaginez mu wax loolu xam nga lu muy tekki lu muy tekki mooy dañu war a def élection yi le cinq bii. parce que gis naa même ñu il paraît que ci biir requête bi bind nañ ci ne na conseil constitutionnel yokk le temps que lu ñu rattrapé lu ñu perdre ñu rattrapé ko. et mhm. cetera am na ñu wax loolu. mais loolu mënul nekk su ko neexee mu def ko parce que man je suis pas avec le conseil constitutionnel man damay fàttali ne yàgg naa critiquer le conseil constitutionnel nous sommes dans notre rôle mais la loi c'est la loi. mais le conseil conseil mënu ko xam nga tax. parce que ça que le conseil conseil non man sur le pouvoir constituant maanaam ñu defar constitution dañ ne ñii c'est le pouvoir constituant originaire mooy ñu defar constitution bu bees ñii c'est le pouvoir constituant dérivé mooy ñu ko changé ñii mujjee changé ñooñu c'est le pouvoir constituant dérivé conseil constitutionnel amul possibilité sut leen donc munu leen wax yéen assemblée nationale mënu leen yokk un jour ba pare moom il se permet di yokkal nit ñi un jour. mënul nekk c' est pas possible. il peut pas le faire alors non xaaral ma ñëw. non non non xaaral ma ñëw rek non il peut pas il peut pas mhm. maanaam dama bëgg wax ne ne situation bu ñu dugal mooy su waxee c' est inconstitutionnel un problème su waxee loi bi baax na mhm. léegi je suis incompétent xam nga lan lay tekki mooy 25 25 euh, décembre ou 15 décembre je sais même plus. 15 décembre parce que ils ont tellement reporté 15 décembre décembre lañu nar a def élection. mais 15 décembre boobu ñu def élection lan la ñu reporté on a reporté le scrutin on n'a pas annulé les élections demal nga xool loi bi ils ont dit le scrutin bu waroon am le 25 février ñu ngi koy yóbbu le 15 décembre le scrutin xam nga lan la opération buy am le jour du vote mais scrutin su amee ça veut dire am nay candidats yu am ba pare et y a une décision en cours du conseil constitutionnel bu wax ne ne candidats yi ñii la 20 yi la waaye léegi nan ngay dugalee ak nan ngay génnee absolument d'accord les recalés ma daaneel foofu les recalés ñoom boobu léegi dinañ topp seeni droit bañ leen di jiiñ ne la yéen sax bokk ngeen fi ñu tax ñu def affaire bi te ñoom doo leen jël en compte. d'accord merci la situation. d'accord impasse boobu la ñu président Macky Sall dugal. d'accord te moo ko tey. d'accord merci beaucoup. alors alors euh, monsieur Thioune.